واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا asalaamaaleykum mbokk yi internet yi nga xam ne ñooy topp Tawfekh Production tey jii nag ñu ngi fii ci Touba ñëwoon seet si Serigne Saliou Mbacké Likhlass fas yéene seq ak moom ci ay waxtaan lu jëm ci wàllu asrar Euh, kon nag ñu bàyyi ko mu nuyoo bokk internet yi nga xam ne ñooy topp Tawfekh Production. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax yenn ñi nga xam ne yéen topp Tawfekh Production ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen nuyu ñëpp di leen siyaare di leen nuyu bu baax sëñ Mourtala ak yaag cameraman ñi nga àndal ak kilifa yëpp. Serigne Saliou euh, tey ñu bëggoon a waxtaan ci wàllu asraar gis na nag euh, ñu bari di jug ku nekk di wax ci asraar mu mel ne daal asraar moom néew ku jug rek dasee war a wax da ko war a xam lool pour war ko def ñu bëggoon a xam nag lan mooy asraar. jërëjëf sëñ Mourtala ci laaj bu am solo boobu nga xam ne ah laaj la boo xam ne dina dimbale ñu bari ndax nit ñi bari ci ñoo xam ne. bari nañ ay soxla bari ay yitte te xamatuñ fuñ koy jooye ndax fiñ koy jooye nit ñi ñi waroon faj seeni ajo ñu bari ci ñoom ñoo walbatiku di leen nax wala lekk seen alal ci li nga xam ne ca lañ nekk muy asraar kon dana rafet ñu waxtaane ko doonte bariwut luñ koy def waaye ñu jàngale ci aslëf rek ci yu gàtt gàtt ngir nit ñi xam dëgg-dëgg fi ñu war a teg seen tànk sëñ Mourtala asrar xam-xam la comme yeneen fànni xam-xam yëpp ni ngay jànge tawhid di ko jànge fiq di ko jànge tasawuf noonu ngay jànge xilmul asrar li yàq jamono ji nag dafa bari ñu koy def mbaa bari ñu koy wax mbaa bari ñu ciy dund te jànguñu ko xamuñu ko moom nag moo ko yeneen xam-xam yëpp a nuróole leen li da koy jàng leen li nga gëstu ko leen li nga tukki ko ci ay réew gëstu ko ñun nag suñu borom suturaal nañu ba dem nañ fu baree bari di gëstu asraar comme ni ñu gëstoo yeneen xeet xam-xam yi ba xam ko ndax dëkk bu nekk ak nañuy doxale seeni mbir tey bu fekkee da ngay liggéey ci wàllu kurus wala ngay def asraar war ngaa xam sulmaani yu wala nga xam nuuraani yu wala nga xam mboolem xeetu xam-xam yi nga xam ne ñoo aju ci asraar soo xamee xam-xam yooyu ba noppi nag sag ragal yàlla moo lay contrôler ba doo def doo wala nga li jëfandikoo beneen xam-xam bu dul bu leer ndax ñun li ñuy faj ci aajo ci aajo yi doon nit ñi yëpp ñu ngi koy teg ci alquranul karim wala ci sunguf waaye lu mu ci mën a doon lu leer lay doon loo xam ne suñ borom daganal na ko dana dana dagan ci nit ki mu di ko def ndax suñu mortulaa lépp lu nit di def te bàyyiwu ci xel boromam jarul mu di ko def waaye bu dee koom nga ci bàyyi xel rek mbaa ñu tudd la mbaa ñu gis la bis dana ñëw loolu lépp jeex kon li am solo te am solo mooy li nga xam ne moom la jëfandikoo muy képp koo xam ne am nga aaju ñëw aaju ñu jëfandi jëfandikoo yow ci alxuraan ju leer naññ wala suñuy mbiri kurus yi nga xam ne moom la ñu jëfandikoo ba sa mbir leer mu mel na daal kon yéen <laughs> maanaam lépp loo def ci wàllu asrar da koy sukkandikoo ci alxuraan doo leen dugg ci leneen yeneen ñi nga xam ne dañuy jëm ñuy tuddee ay buxaaba hmm. di jëfandikoo yeneen yoo xam ne ar maanaam dafa araam xam nañ lépp nag hmm. xam nañ ñaari anam yëpp ndax nee naa la dem nañ fi Mali hmm. dem nañ fi dem nañ fi e, Bénin dem nañ fi Cameroun dem nañ fi Gabon te fu ci nekk giseen ne gëm dem nañ fi Mauritanie te fu ci nekk gisee nañ fa ak ay nit ñoo xam ne ñu xam wàllu wii lañ donte li ma lay wax ni at yàgg la boobu gën nañoo féete ndaw waaye dafa am loo xam ne day tollu ci moment boo xam ne ci nga koy doog a tàmbalee génn kon asrar lu ñuy jàng la lu ñuy xam la lu ñuy gëstu la naka lañ koy jàngee naka lañ koy xamee di nga fekk ci boroom xam-xam bu mag boo xam ne fees na dell ak xam-xam nga ñëw tarbiyewu ci ronam benn mu di la bindloo mbaa mu di la liggéeyloo mbaa laaj la alal bari nga jox ko mu jël benn secret boo xam ne bu ko bindoon ci këyit sax daana ko du mën ñett bind mu laaj la ci alal ju bari joo xam ne bu dee li ngay wut jëralu ko rek doo ko def kon leen loolu leen la ci gëstu lan mooy asrar muy xam-xam bu yàgg nag boo xam ne ku ne xam na ne yonente yi ci boppam sax sunu borom daana dëbb ci seen biir ay karaama yoo xam ne bu ñu koy def karaama yooyu nit ñi léegi dañ ci sukkandiku di ko tëggee asrar bii ñu nekkee ku mel ne yonente yàlla xiisa xam nga ne daana ray eh, lafañ mu dox daana raay gumba muy xoole daana dekkal ku dee dégg nga nga gis ne yonente yàlla Souleymane amoon na jaaroom boobu mu daan takk nga xam ne jaaro bi pouvoir yëpp ci jaaro bi la nekkoon gis nga diir bi mu ko réeree sax ni mu amee problème ba nit ñi xàmmeetuñ ko loolu asraar xam la boo xam ne nit ki da koy xam du looy jékki rek sol sa garam bu bu toog looy xam la ba nga xam ne bu suñ murtalaa mii jugee fële ñëw toog sa kanam aji wut mu lay wax soxlaam xam nga ki ñëw ne man kat sëriñ bi damaa am lu ma bëgg nangam ngi nangam te nga tëb tëb nga wax la ko ba noppee yow nga koy soog a xam ba bëri na ci sax ñoo xam ne ñu ngi leen di nax ci liñ leen di naxee ci ñoom lay sukkandiku man ki nga xam ne maa ngi jëflanteeg moom ci ñaan sëñ Mourtala bu ñëwee jarul mu may wax dara na ñëw ne ma wàllu seet laa soxla woon xam naa sedd nañ ci dugg wax ma li mu bëgg bu ko def su boobaa ñu xool ko xam xam yan anam la ñuy jaar ba fajal ko aajoom jooju ci lu dul muy am benn coono ma profité leeral lii ñuy ñëw ci man di ma jàmbat hmm. sëriñ bi sëriñ sàngam lekk na sama alal sëriñ sàngam nax na ma sëriñ sàngam nax na ma waaye nit ñi sëñ Mourtala ñooy tooñ seen bopp ndax li ñuy tooñ seen bopp mënoo topp rek àdduna bépp sëriñ bu ne sëriñ bu ne nga dem fa nit du tàmm ay sëriñ nit du bëgg ay sëriñ ba nga xam ne jàpp nga ne fukki sëriñ juróom lañ laa war a ñaanal li am solo mooy kenn nga jàppante ak moom xam ne kii ku dëgg la li muy def lu mu xam la ku am xam bi la te ci ragal yàlla la te koo xam ne bu la defaloon lam la defal gisoo ci sa bopp sax am na ragal yàlla delloo la sa alal ku mel noonu ngay jëfandikoo ndax bari na sëriñ soo xam ne boo leen xasee yónnee alal duutu la jël téléphone. te loolu bari na ci loo xam ne nit ñi ñu ngi koy wax di ko wax ku ñëw di la ko waaye nag man bari na ñoo xam ne bu ñëwee fi di ma ko wax dama leen naan yéen a tooñ seen bopp. ndax booy booy ñaan lu war ngaa xool ku ragal yàlla koo xam ne leer na la ne lim lay defal bu nangu sax dana jël dana jël sa alal delloo la ko. rawatina nag muy koo xam ne mën na laa assuré ne lim lay defal bal lay doon boo xam ne faaw dafay takk kon asrar sëñ Mourtala bëri na ñu ciy naxee ñoo xam ne dañoo jàngu dëgg dëgg dëgg lan mooy asrar bëri na nag ay façon bëri na nag ndomba yoo xam ne ñu ngi ko ñu ngi koy liggéey bëri na jaare yoo xam ne ñu ngi koy liggéey bëri na xel xawaatim bëri na façon yoo xam ne ñu ngi koy liggéey yoo xam ne nit ki da koy jëfandikoo muy faj aajoom ci biir ak ci bit sëñ Mourtala jërëjëf sëñ Saar mën na ne leer na naññ bi nga xam ne mooy jëm ci wàllu xam-xamu asraar léegi dañuy dugg ci deuxième partie bi mu jëm ci wàllu seet mm-hmm. mu nekk loo xam ne mm-hmm. ñu bëri dañ koy yittewoo ci askan wi te ñu bëri nag ñu leen ciy nax uh-huh. waaw ndax seet moom yombut seet mm-hmm. eh, ba gis nit ki yombut ñu bëggoon a xam suñ saali yow seet nan nga ci taxawee ak seet suñ borom dimbali nañ ci man nag man naa bokkut samay wax dama naan yàlla mën na ci kattanam mu xamal ñu dara ci ay xam-xamam loolu suñ borom suturaal nañu ko waaye say soxla wala li nga bëgg nga ko ak ñun ci téléphone aajowut ngay ñëw jokkoo ak ñun ci téléphone sëriñ bi kat nangam la ñu soxla woon incha allahu bi minute yu néew ñëwaat la wax la ci ba wax la yow ci sa bopp lu la jaaxal ci sa bopp te awee ko ci lu leer nag loo xam ne dañ lay wax lu leer naa ñi ba buñ ci ragalu doon yàlla bañ kër gu tas mën nañ la tudd tur ak tur mën nañ laa tuddal tur mën nañ laa wax melo seet gi daal jërul déplacé bu la neexee jërul déplacé bu la neexee nekkal Italie bu la neexee nekkal France bu la neexee nekk bu la neexee nekkal Bambey gii nga woote téléphone wax sa tur ak sa sant ñaata at nga am ndax ma profité foofu leeral dara xam nga lu tax seet jafe li mu laaj sëriñ si dañ ko dañ ko defatul ni gis nga asraar bi ni ñu ko jàngee noonu ngay jànge seet ba xam ko xam biddiwu nit ki dégg nga xam tabiaam xam naka lay naka lay taxawee ba kañ la biddiw bay xëy kañ la nangam loolu la lay jaral ba noppi nga soog a xam mbiri sëñ Mourtalla mi naka nga ci sooboo. waaw sëñ bi mu mel ne daal képp koo xam ne woote nga moo xam téléphone la wala mu ñëwal boppam lépp ma ngeen koo seetal. képp koo xam ne ñëw nga wala nga woote léeg-léeg nag nit ñi di woote fekk ñi nga xam ne déplacé wu nañ ba ñëw boo gisee ñu lay woo dañ laa woo jotuñu la wala doo jël téléphone wala doo tontu message loolu li koy waral mooy. ki déplacé wu ba ñëw ba toog ci yow da dul yem ak ki nga xam ne ma nga fële di woote kële ne fa di woote moom yow am na dogub alxuraan boo war a jàng am na tur yàlla yoo war a wérdu am na loo war a def yooyu ngay def ba noppi waaw whatsapp bi moom nañ <laughs> ko bàyyi waa bitim réew ndax da gis ku nekk Sénégal gii man laa woo appel noron wala mu waaxu dagg paas ñëw ndax ñun ñi ngi Touba ñi ngi Dakar waaye duñ ko def dañuy toog fañ toog di la woo whatsapp di faj yi nit ñi ba pare guddee ci whatsapp bi di fanaan ci vocal yi ba pare wëlbatiku bëgg faj aajo yi loolu mënta nekk ndax lii jaamu yàlla gu wér cëng mooy tax sunu borom man laa may nga tiim nit xam li xam aajo ji nekk ci moom moo tax ma ne la seet bëri na ñoo xam ne dañ ci dañ ci dañ ci dañ ciy nax nit ki nga woote ñu wax la yi nga xam ne ñëpp la dal xam nga ba woote ñu ne la ku ñuul ki ci kër gi wala ko gàtt ki ci kër gi kër yëpp am nañ ñu la ñu gàtt bëri na sëñ bi bëri na kër yu muy jaxase de loolu du seet xam nga lan mooy seet nit ki woo la nga xool tabiam xam biddiwam xam léppam bu ko defee nga tàmbalee ko fa mu tàmbalee ba fa mu yem ah sarax yam war a génne yan sarax yii bu ko génnee dana mucc ci ayu at mi sarax yi bu ko génnee entreprise mu bëgg a taxawal dana taxaw sarax yi bu ko génnee lii sarax yi bu ko génnee lii nga moytuloo ko nit day war a xëy tukki wala téléphone dagg naa bee ba noppi lënd laa war a dem nga ne ko lënd rafetul bul génn réew lënd boobu su demee benn mën naa bañ a ci jàmm su ko yàlla sutura mi àgg ci jàmm tukki boobu mën naa nekk ci tukki bi gën a naqari ci ay tukkeem mu mel ne tubaab yi ñuul ñoom <laughs> farataaluñ loolu te loolu tamit lu ñu war ñoom fonkuñu ko waaye lu am solo la maanaam wala nga tabax sa kër bisub sanc gis nga suñ mortu laa kër mm. soxna oto ñett yooyu képp kuy tëb tëb di ci dugg yaa ngi dugg ci erreur oto moom day def jéey ju kër a ko raw nag oto jéey jaa bëri ba nit ñi teg seen bët waaye kër a ko raw ndax kër soo ko jëndee tey 2024 na nga xam ne am na am na jinne ñu ko moomoon lu ëpp téeméeri at ci ginnaaw avant nga ko moom léegi nga xëy xëy seet lu woo ko ñaan lu woo ko xëy xëy tabax rek dëkk bu ko defee ak njabootam ne fa léeg ñuy lor sax njaboot wala léeg-léeg sa wërsëg di tëju wala léeg-léeg li ngay yéetu doo ci jot yooyu yëpp xeetu dëkk xam ne ci kër yi kër yi lay juddoo ci kër yi lay juddoo dana juddoo ci kër sax dem dana juddoo ci place it da ngay gis ku taxaw tabax place boo xam ne hmm. la mi jaay la kee di jaar te yow mënoo jarle xam nga loolu war nga xam ne mbir la hmm. li ngay jaay kii di jaay ngeen taqaloo te yow mënoo jarle moo tax seet sëñ Murtala moo yor àdduna bi nit bala ngaa dugg ci dara téléphone bii dong bala nga ko jënd war nga ko seetlu sa oto bala nga ko jënd war nga ko seetlu man kat am na nag ñoo xam ne nit ñi nag jamono ji am na ci yow am na ñoo xam ne bu ñu waree jënd oto ba téye njëg gi dañ man bëgg na maa jënd oto kat ndax jig na ma ndëgg ni ma jënd koom déet léeg nga xool ko ne ko bu ko jënd léeg-léeg nit war a tukk nga xool ko ne ko tey rafetul demal bi sàngam nga xam ne jar na nga pert sa béyee daggaat beneen béyee ndax boo demee tukki ba du neex wala nga am jafe-jafe euh, dinaa dégg si mag ñi ñu naan mhm. xool bis bu rafet mhm. war a tukki xool bis bu rafet jar na toog ren ba déwén jar na toog ren ba déwén jar na perte béyee avion nit ñi nag léegi jëralatu leen dara ndax ndax jëralu ne dara tamit lenn ci sëriñ si la ndax boo wootee ñu ne la dangay ngay séentu muy yaa da ngay yaakaar muy tas loolu ñëpp yaakaar muy tas de wala ngoro gi nga nekk ñëpp a nekk jamono ji koo xaaj boo xaajoon xaaju nit ñenn ñaa ngi ci ngoro ñenn ñaa ngi ci projet ngoro moo nit boo ko seetalee danga koy wax lu wér cëng lu leer nañ ñi loo xam ne ki nga xam ne ñëw na ci yow dana xam ne gis nga ko te teg ko ci yoon waxam ne bu ci jaaree suñu borom mën na ko defal tawfeex seet suñu murulaay nit ñi dañ koo yombal te mu jafe lool da gis koo xam ne lim lay seetal lépp du mat sax une minute mbiri doomu aadama bi lim ko bëgg dimbalee lépp mënoo noo ko tënk ci une minute waaw nit da nga yor seet gu wér goo xam ne ku la woo wala mu déplacé wu ñëw nga mën a wax ci moom nga wax koo mën a wax lu leer naññ ba nga xam ne su demee ay aajo mën a faju moog waa këram <laughs> jërëjëf sëñ Saliou leer na naññ vraiment mm, mm. Eh, xanaa ban dénkaane ngay jox rek joxe rek. ak wala ban message wala ban ñaan ngay joxe ci réew mi tamit. yàlla gën fi def jàmm ak naataange ak xéwal. message bi message lay doon ak ñaan. am na loo xam ne dama leen koy may loo xam ne lu wér cëng la ma koy may képp kuy suivre Tawfekh Production. muy 450 xasbunallahu wa ni'mal wakiil gis nga jamono ji soog yi bari na ndaw yaa ngi faatu nit ñaa ngi faatu faatu gu met xasbunallahu wa ni'mal wakiil boo ko takkoo suba ak ngoon. bu asamaan si doon daanu sax dinañ la wutal foo làqatu loolu moom moo ko xisnul abraar bu Sëñ Tuubaa bi ñoo ko nuróole gis nga léemaa yu mel noonu mag ñi dañ ko fonkoon lool ak bu fekkee da tiit sa bopp maanaam guddi yi say mbir dafa dëgër lii moom dama la koy sarax bi tamit dama leen koy may moom da ngay da ngay peese sa bopp ni nga toll ci ay kilo nga génn ko ci ceeb ak mboq ak dugub nga saraxe ko insha allahu rabbi am na càngat yoo koy boole di nga gis ubbiku ci lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw càngat yooyu dañ ciy def code ku ko soxla waaw da ngay woote <laughs> waaw ku ko soxla mën na la jot ci yan numéro ku ñu soxla mën nga ñoo woo ci 77 776 73 73 wala 76 192 50 51 waaw ñaari numéro yooyu doon moom bokk na ci numéro yi nga xam ne yor nañ ko te ñu ngi koy ñu ngi koy wuyu kuñ ci woo incha allah di nga ñu jot wala nga jot suñu ndaw bu soobee yàlla. ñu mel ne tamit yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi yaa ngi Touba. waaw léeg maa ngi dakaar mhm. ci géejawaay ci biti ko xalifa. Mhm. léeg maa ngi ñàkku rab ca daara ja mhm. ndax lii it ñaanit li ngay dimbalee nit ñi waaye nga war a liggéeyal lislaam moo tax daara internat boobu ñu taxawal ko di ci liggéeyal lislaam foofu ci ñàkku léeg-léeg bu ñu fekkee Touba it ku woote ñu ngi daaru nam ci wetu kër Sëñ Muntaxa moom Sëñ Basiru yàlla na fi yàgg loolu te wér jërëjëf sant nañ bu baax a baax a baax mm-hmm. mbokk yi ji topp ci Tawfekh Production mm-hmm. tey ji loolu la ñuy indiloon fii ci kër Serigne Saliou Mbacké Likhlass